APR nga am nag jaar jaar depuis 68 nekk Jaïs nekkoon LD1. Ah, nekkoon eh, ah, eh, beaucoup de partis je les ai visités. waaye mhm. oui. jot nga collaborer ak wadd wala àndoon ak moom. bon nekk naa ci parti Wade. Mhm, PDS. PDS. Mhm. en 78. bi ñuy euh, bi muy bëreeg si ko. ñun bokk naa ci ñi ñu yebaloon Ndofane. Ndofane Lagem. Ah, benn waay bi ñuy wax Niass moo ko jute woon. ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba élection yi am. bi élection amee itam à l'époque eh bien on a battu ce corps couture eh, parce que les résultats toog nañu lu yàgg yàgg yàgg ñu fexe ba proclamer ko. Mm-hmm. alors euh, d'après ce après il a fallu que ñu woo ko à une table ronde. Mm-hmm. pour waxtaan ak moom diisoo moom. parce que Senghor dafa nekkoon nitu jom nit ko xam ne bëggoon ko déshonorer et à l'époque c'était Jean Collin qui était le ministre l'intérieur bi mu nekkoon euh, gagné nañ la mu ne eh, te loolu am na mu ñu ko waaw mu ni ko mais naka lañ koy lijjanti est-ce que mën nañu ko mbuxum mu ni ko ah non kenn mënu ko mbuxum parce que daf lay batt ak plate couture dafa victoire dafa dafa yaatu. Abdoulaye Wade moo leen gañe woon moo leen gañe woon. Ah, euh, pour après ñu lijjanti ko pour voilà pourcentage bi hmm. euh, mu ni ko léegi lan ma ciy xalaat mu ne ko nga woo ko tabaroon hmm. alors à l'époque y avait les Mamadou Guirassy y avait les Magatte Lô Karim gars yi bi mu tuddee Karim Wade. c' est léegi boo gisee mu dugg ak yow foofu. en effet dama bëggoon rek. waay ñi ñi seetaan xam ni. ku am expérience am jaar-jaar. moo toog pour booy wax nu xam ne. li ngay wax war nga ci wax quoi parce que jaar-jaar boobu moo taxoon rek ma introduire la noonu. mais dañuy ñëw ci sa candidature nag. Mhm. tey jii loolu ñu gën a yëkkati. père. Mhm. nga ni candidat nga. waaw foo ko teg père. ci candidat bu amul caution. conseil constitutionnel yow heure bi waroon am sa jotu émission bi heure bi waroon na xaaral ñu naan sa numéro mooy numéro diis wala vingt. waaw ak sa parrainage fa la toll. d'accord yooyu yëpp dalu la nga taxaw ni yow candidat nga ci élection présidentielle deux mille vingt quatre. Ah, faire foo teg loolu. te loolu dafa nekk lu am. waaw dafa nekk lu am parce que déjà euh, ñiy joxe kayit yi ba ngay nekk candidat. Hmm. ak condition yooyu laaj yëpp joxe naa ko ba ñu jox ma samay parrainage. jox naa la ay feuilles parrainage. ma dem samay parrainage. boo toll ci foo xamante ni fii je pas atteint de. wolof bi wolof bi waaw. ma am euh, li nga xam moom la ñu laaj. 44 mhm. minutes et poussière. Mhm. bon sama admirateur yi def nañu seen kéemtalaay kattan ba dajalee sax lu yëggi sama sama njort. Mhm. ba ma am sax lu ëpp caution. mais caution moom boo déggee ñu dañ koy teg mooy day teg sa partenariat dafay mot. te itam vraiment je ne suis pas le ndax am na ñu bari ñoo xam ne sax seen poste mot na donc ça ne nous ça ne nous je ne peux ñu ñu bàyyi ko mu expliquer. yow condition yi yaa ngi koy wax mais yow papa suma juumul yow âge nga parce que wax nañ âge bi nga xamante ne nii waroo ko romb. Euh, pour pour nga nekk candidat te bu may dégg ngay door yaa ngi wax ca jamonoy Senghor kon yow. la ah, mais wax loolu wax nañ ko tuddati ko. tuddati ko jox nañ ma en tout cas samay parrainage. Mhm. renvoyé wuñ ma. Mhm. renvoyé wuñ ma. Mhm. donc kon candidat la bokk na. mais boo âgé kay yow. bon <laughs> en fii laa am sama 74 ans. ah. quinze ans mooy. la date la date limite. 75 ans pour que doo nekk candidat te kooku eh bien mooy li Macky Sall moom décidé en réformant la constitution du Sénégal donc pour changer constitution du Sénégal bi mu la wootee référendum la ko dugal mos cee am dafa mel ni que Abdoulaye Wade dindee la peine capitale. père père bi ngay jug est-ce que vraiment sa candidature lu sérieux la woon nga baal ma nag. parce que âge bi lu sérieux amoo xaalisu caution. Ah, non mataloo parrainage non ko léegi comment. am na ko mais général on ne peut pas déposer de l' argent de caution sans avoir des c' est pas possible. c' est amuloo sa complet impossible. mais am na ñu dem dugal seen xaalisu caution jot seen quittance te. waaw dem conseil constitutionnel am na sax ñu dugal sax seen parrainage te dugaluñu sax caution. am na bay am na mais def nga dépôt conseil. mais man loolu du ma ko def. conseil concerné jox na dépôt. non mais comment je vais faire un dépôt je vous l'ai dit mënu ma mënu nekk pour mais raison bi ngay wax. waaw ni raison dëgg dëgg dëgg rek moo tax a jóg. waaw yow waroo sax nekk candidat. Hmm. écoutez-moi bien pour être un candidat ngay am. Senghor mi ngay wax sànq daan na ko wax bëgg a dem taxut a mën a dem. mën a dem candidat mooy tax a dem. te yow te yow mënoo dem. pour nekk candidat dans da ngay am une conviction politique am une doctrine am une ligne politique am ay option politique am loo gëm am loo bëggal réew mi moo tax ngay wootee xëccu pour nekk candidat hmm. est-ce que vous comprenez bien man bi fii nekk da nga maam di xeex ci boobu jamono dafa yàgg finalement dama dem ba mu jig dañu ma ostraciser ostraciser mooy lan maanaam koy diaboliser non du yow rek yaa doon bañ ñi doon bañ bari na waaw ñi doon bañ bari mais dama lay wax ne tax ma war a doon candidat yaa ma dégg saa yu ma fu ma ne bëgg tekki dara. bëgg doon candidat te osé woo dem déposer conseil constitutionnel kon tey jii yow dafa mel ne rek. Euh, en fait vous êtes en train de maanaam candidature de façade la woon rek. pour coow pour coow li parce que nit ñi jugoon na woon. pas de xam ne yow da nga bokk ci ñi jàpp ni mbiri président da nga ko doon fooy ci réew mi. waaw parce que bu nee ba ne deux cent quatre-vingt-treize ay dépôts wala candidat déclaré ñu ngi ci réew mi. mais tey jii bu nu gisee yow ni nga toogee ci ko xam ne amul caution limite d'âge bi léegi mu dab ko. Mm-hmm. bu dee ci parenage bi amul parrainage dëppul conseil constitutionnel kon tey jii ñëpp danuy jàpp ni jug bi nga jugoon yow di dem di jëli parrainage c'était pas sérieux. c'était pour faire pour passer un message. ah message boobu laa bëgg xam nag léegi. message boobu ci laa nekkoon di la ko développé. waaw ñëwal. mais vous m'avez interrompu. non non doo nekk dans un débat ñu lay relancer. quoi pour aller en Afrique. Hmm. c'est un bâton rompu maanaam dañuy dégloonte. waaw ah, ñëwul ci message bi waaw. nga ba nga baal léegi baal naa léegi maa ngi lay déglu léegi. en Afrique ci message bi. ñu xam. Hmm. suñu ay débat sur l'arbre à palabre ça se faisait à bâton rompu. Hmm. ñun dañoo érigé quelque chose di nga xam des tubaab mooy waral des tubaab en vivant dañu lay entrecoupé pour indi une sorte de dichotomie benn benn confusion dans esprit. mais man je suis assez expérimenté. on ne peut pas me plonger dans une confusion. non mais kenn mënu ma kenn mënu ma confondre mais sa candidature c'est une candidature. bon c'est une candidature objective et valable. waaw léegi wax ma expliquer ma euh, bi message bi message bi. waaw objectif. donc c'est la chaise léegi léegi message bi nga bëggoon jàllale. voilà léegi ban message bi. alors message bi ma bëggoon jàllale mooy. di hmm. nga xam ne noppi bu métti bi nekk ci Sénégal. l'omerta ak ce euh, silence coupable maanaam noppi bu noppi nga xam ne ni nit ñi dañ ko noppi te waru ñoo noppi mm-hmm. est-ce que vous comprenez mutisme là noppi ci lan le mutisme noppi ci politique bi surtout mm-hmm. noppi ci société bi mm-hmm. noppi ci ay gérer notre économie noppi boobu la ñi war a wax en fait ñi war a wax ñu ngi wax mais am na ñu bari ñu war a wax te waxuñu waaw ah, loolu dëgg la ñu bari ñu war a wax ñu waxuñu am na ay kilifa yu war a wax ci waxuñu ay kilifa sur le plan traditionnel am na ñoo xamante ne ñi au niveau religieux am ñoo xam ne c'est au niveau même politique ñoo xam ne c'est au niveau euh, sous-serment parce que ce sont des cadres assermentés euh, au niveau même de la justice. côté moom ànd naa ak yow. war a wax te waxuñu. dëgg ci réew mi moom am na ñu ko war a wax. donc le mettant le mutisme. moo nekk li nga xam ne man moo tax man ma ñëw ci plateau bi moo tax ma dugg ci élection yi. te man élection bi ma ci bi ma bi ma aspiré à être un président de la république j'étais encore très jeune j'avais que 18 ans man bi ma bëgg nekk président de la république j'avais que 18 ans. mais dama la à force d'être ostracisé diabolisé mënuma liggéey sama réew pour man fee am stabilité dama daan daw di dem bitim réew di liggéey di ñëw di yore sama njaboot di yore samay waajur ba nëgëni si. c'est la première fois c'est l'occasion qui m'est offerte pour la première fois ma mën a présenter wu comme un candidat à la présidence de la République et me faire connaître gëw ma ni mënatul nag gëw ma ko gëw ma ko xam xam nga tax gëw ma ko parce que keneen ku ñëw mën na réformer encore moom le la constitution non da nga wax kenn ku ñëw mën na woote en référendum da nga wax benn baat bu la rëkki ah rek mooy mu faire connaître mooy fexe ñu xam ma kon yow tey jii kon laaj bi ma lay laaj bañoon nga ci tontu léegi leer na da yàgg ngaa xeex depuis 18 ans xaar ma dugg ci pëccoxoo pour ñu que euh, ñi juddu sama gannaaw boobaak léegi 68 dafa yàgg mhm. ñu juddu sama mhm. fi di def politique tey samay doom ak samay sët ñoo koy def ñooy def politique en ce moment là te ñooñu ñoo bëgg dem alors que man dama dama nekkoon ci précurseurs yi dama tey dama rafetlu loolu te dama ci am mbégte je suis absolument très content li nga xam ne maa ko doon wax démb bëgg démb ñu may ñu ak di ma ostraciser tey samay sët ak samay doom ñoo koy def kon alhamdulilah rabbil alamin ma dellu si waat nag fekk samay doom ci terrain bi léegi nag dina moom nag ñi ma ñi juddu woon sama gannaaw te xamuñu ma fekk mu nekkatu ma woon ci réew mi dellu si waat ci réew mi tey nañu xam ne ñëwaat naa taxawaat na ànd ak sama doom yooyu ak sama sët yooyu ba pare jox leen xalaat te jox leen yoon pour ñu li ñu bëgg rek ren en 2024 ñu am waaw jërëjëf góor gi dégg nañ wax ji mu am solo lool wax ji effectivement Euh, waaye man boo lenn moo ma jaaxal xam nga yow danga ne. Mm-hmm. da nekk nit koo xamante ni. Mm-hmm. Euh, li tax li tere li nga waroon a mën a def nga def ko. Mm-hmm. mooy dañ la doon diaboliser. en ci taarixu politique. sa tur bi da cee ñëwut koo xam ni doon nañ ko diaboliser. ba mu war koo jaral. ba mu toll benn niveau bi ba mu war koo jaral. mu génn dëkk bi. Euh, léegi loo ñu mën a expliquer loolu. parce que loolu bu fekkonte ni bi tey euh, li nga ñu expliquer nii kon donc taarix waroon na retenir loolu mm-hmm. Mm-hmm. mais lan moo tax taarix retenir ko xanaa kon lu ñu effacé la wala nan la yëf yi demee oh, mm. euh, xëy na ah ndax dañ koy nëbb ndax ndax xëy na peut-être xanaa dañ koy dañ koy kersawu ci d'abord ci ban parti nga nekkoon ak position yi nga nekkoon ci parti yooyu ci jamono jooju euh, ba tax nga jaaxaloon nguur gi fi nekk ba tax ñu di la naa la évolué ci parti PDS parti PDS pendant très waa ci lan nga fa nekk. xam nga waa ji mi ngi ko sos. 74 74. Mhm. man 78. fekk na maa ngi ci biir. yaa ngi ci biir 78. simple militant. militant simple je suis pas un responsable. waaw mais ci sama vocation. waaw politique. dinañ mhm. moom boole maag responsable yi mais ànd ñoom di liggéey danga nga. ban responsable. y avait un certain Niass à. Euh, euh, wax ñu responsable bu siiw quand même même munoo ñoo wax yow dem nga ba toll foo xam ni dañ lay diaboliser. Euh, te non seulement mënoo ñoo wax tamit responsable boo xamante ne xam nañ ko il faut nga ñox ñu responsable bu ñu xam parce que bu ñu xamul responsable rek yow mënuñu laa xam à l'époque y avait Fara Ndiaye Fara Ndiaye hmm. mais waaw Boubacar Sall y avait quelqu'un mais attendez sukaar dëgg ko Fara Ndiaye hmm. y mais même Idrissa Seck tout récemment. Idrissa Seck hmm. jox na ma xaalis pour faire un meeting à Thiès. Idrissa Seck. waaw ngay wax de Idrissa Seck boobu booy la de. tout récemment dama ni la tout récemment. boobu Idrissa lu mu tekki woon ci PDS. boobu du fa dara tekk bu fa dara de. non amul waaw boobu amu fa dara de góor gi. dama ne pour pour te dire que ni évolué naa ci PDS. waaw les Fara Ndiaye et les Boubacar Sall. Hmm. ñoom ñoo fi nekkoon. mais tout tout récemment. Hmm. mais c'est mhm. xam nga tey. waay Abdoulaye Wade moom ku ne xam na ni PDS. moo nekkoon cible bi yooyu. Mhm. représentant ñi nga xamante bi ñoom la nekkaloon. ñooñu ci jamono ji ngay wax nii. bon ñi ci nga ñi ci sonaloon Senghor. Mhm. Euh, Senghor daan nañ leen jàpp di te kii ak yooyu mais yow boo bokkoo ci ñi nga xamante ni bii sonaloon nga leen bañ lay diaboliser. non ah, non diaboliser ba mu kii. ñëwal. diabolisation bi xam nga fan la commencé. waaw fan lañ la diabolisé. non seulement moo diabolisé là-bas parce que jamono dama dama feeñoon trop ci boobu jamono. da nga sama mbir militantisme. Hmm. mais que en 83. Hmm. bi Abdou Diouf ñëwee di moom au pouvoir. Hmm. remplacé la nga maam Senghor. dama daan am habitude à chaque fois d' aller au tribunal de Thiès. de suivre parce que mon mon père était à Thiès. il était un entrepreneur dama daan nekk ci moom. loolay quatre vingt lan la. quatre vingt trois quatre vingt trois d'accord. di hmm. boobu yaa ngi liggéey ak ban kii. ca ca moi j'ai travaillé avec mon papa. qui était entrepreneur maa ngi doon superviser. ci biir parti bi laay wax man. Ah. kan nga fan kan ko doon liggéeyal. 83 mu doon liggéey ci biir parti bi. waaw euh, kon donc yow bi ñu lay diaboliser à 78 lañ la diaboliser nga dem. kañ nga ñëw 83 wala da nga ñëw 83 ci nga actif ba ñu kii la nga dem fan la ci mbir mi nekk quoi man moom laa. en 83. bi ma jógee sama séjour. waaw ah. de la Guinée. <laughs> à chaque fois damay génn xam nga damay génn. à chaque fois damay génn di ñëw di génn di ñëw. di génn di ñëw mais da nga wax xam nga man diaboliser bi nga wax man moom laa bëgg a xam rek. fan lañ la diaboliser quoi ak ci lan lañ la doon diaboliser yan acte nga tegoon ba tax ñu di la diaboliser. mais je vous que nii. parce que diaboliser duñ tëb tëb rek jàpp man xam bii j'ai parlé beaucoup de petits et partout où je parce que boobu communication yi tamit yombutoon nañ arriéraat tamit kii bi jamono jooju RTS doo nga fi nekkoon. ci yan nga doon communiquer ci yan journal ak et cetera xam nga yooyu yëpp tamit góor gi fi mu toll nii. attaqué pour mu mën a toll fenn ci yan journal nga daan bind li nga daan attaqué fan yan journal. man dama daan dama toog di bind samay ay track. di ko bind. di bind samay track. waaw di wër ci dëkk bi. di ko séddale di joxe. Ah. fan au temps de Senghor laa ko commencé di loolu moo demoon ba. sonal nguur gi. track yi nga doon bind man la. au temps de Senghor on m'a diabolisé parce que je faisais des tracts yoo xamante ni ñi di ko sànni ci biir dëkk bi. nit ñi di ko jël di ko lii dafa am ñu la daan sànni la wala yow képp. yaa daan sànni man maa daan dox di ko sànni. di joxe ay tracts. di ko jox di ko joxe di ko joxe. tracts yi loo ci daan wax da daan critiquer nguur gi wala nga. dama daan critiquer Senghor. ci ci yan domaine nga ko doon critiquer. le fait qu'il soit un néocolonialiste. le hmm. fait que moom qu'il est qu'il est qu'il est bradé. Hmm. li tax mu bëral suñu ay richesse le fait que da moom mu yàq suñu diine en grande partie li tax mu xeex ak du Dia ba da nga moom ma lii Mamadou Dia tolloon yëpp mu dindi ko teg mm-hmm. à côté ostagie mm-hmm. ko moom ci boppam mm-hmm. jaxase ko waa réew mi arrêté ko denc ko ci fan na yooyu la daan bind attaque di dal ci kaw mais tey jii sànq da nga ne benn ci sa biir euh, xeex xeex da gis ay ndaw yoo xam ne combat yi nga nekkoon yow da nga gis ni ñoom tey jii ñu ngi koy représenté nga ñëwaat nga ni ah léegi mhm. man de la ma doon xeex gis naa ñu koy xeex xaar ma gunge leen mais est-ce que gënul woon sa expérience parce que am nga jaar-jaar mhm. nga apporté ko tey ji boo nee jaar fii Mamadou Dia tey jii boo nee lee euh, partis de gauche tey jii comme Tëngéej bi nga dëkk Abdourahmane Diouf mi nga fa xam nga ko mhm. bu ne Ousmane Sonko tey jii moom boo dee wax ja rek sa xel day dem ci Ousmane Sonko permanence partem sax moom la ko tuddee. Mhm. tey jii est-ce que gënul woon. Mhm. nga ñëw dugg ci parti yi jeunes yi ne ay Déthié ay ñoom kii Sonko ay kii. apporter leen sa expérience yow. Mhm. au lieu ngay ñëw naan candidat la pour ñu xam la mais nga apporter leen sa expérience. Euh, pour que ñoom fi ja jaaroon ban daanal ko yéen fi ngeen jaaroon ban daaneel leen ñoom ñu bañ fa jaar est que loolu gënul woon. en fait euh, nekk parce que ne li nga doon xeex démb gis nga ay jeunes yu koy xeex. mais tey danga war a ñëw taxawu leen apporter leen sa expérience. nekk na lu baax c' est une excellente mais boo ça ne m'oblige pas je sais pas je sais pas du obligation pour ma dugg seen i dama pour ma militer seen i parti. yaa ma dégg raison pour ci constitution bi admettre nañu ay candidats indépendants man j'ai fait option pour être un candidat indépendant. léegi sa ko parti bi nan la tudd. sama parti bi nga bëggoon nekk présidentiel. candidat indépendant. je suis ah, ah, un candidat indépendant. ah bi ma la jàngatee. man bon li ma gis mooy bi ma xoolee. mooy que ni nekk nga candidat. li nga wax noonu pour ñu xam la loolu mooy li nga wax sànq. Ah, waaw mooy dëgg. ginnaaw bu ñu la xamee. Mm-hmm. nga wane ne. yow kat bi nga nekkee ndaw. Mhm. yaa ngi àndoon nag ñi am gis-gis politique bii. Mhm. loolu yëpp nag boo ko wanee ba noppi comme émission bi boo ko defee ba pare. léegi nag maanaam yow fi mu toll nii man li ma la gisee mooy góor gi. Mhm. kuy dem ci kii nga pour wane ni am nga mbooloo moo xam ne ànd nga ak ñoom. waaye élection yaa ngi ñëw. waaye ñii laa bokkal gis-gis. ci ñooñu nag nga bëgg dem nag te boo bëggee boo demee bëggoo ñu sédd la fa bool bu ndaw waaye mm-hmm. da bëgg a dëggantaan bu lool bon phénomène séddu boobu boobu ngay wax waaw waxin la rek bokk na ci li pour am pour am pour am boo xamante ne bokk na ci li may xeex bokk na ci li nga wax waaw non c'est lii moom mooy li nga wax mais man dama la wax ne la man dama analyser yëf yi waaw kay déglu dégg naa gis naa dama ni dama ni bokk na ci li may xeex mm-hmm. séddu ndax séddu ak séddu dafa am waaw Seydou Diagne wax na ko poste à la deuxième position poste baax na mais Seydou ba tax jugatul loolu moom moo ñu lor ñun Sénégal. bu ñu ko wax poste laay wax fi ah? parce que ñii ñii ñi ngay waxal nii. waaw nekkuñu ñuy ñuy séddoo gato. gato waaw waaw ñooñu nekkuñu ñuy séddoo gato quoi. waaw mais nag ay nit la yoo xamante ni bii tey am na ñoo xam ni peut-être ñoom lañ bokkal gis-gis. léegi nag yow dama dama jàpp ni da nga wane sa bopp. pour ne man gis-gis bii kat. waaw kay da ngeen ma cee fekk yàgg na ci man. en effet. nga wane sa bopp ci loolu pour ñooñu bàyyi la xel du lool. en effet bien sûr. voilà loolu la loolu man. tey jii kan nga gis. yow kan kan gis sa bopp ci moom. bu nekkoon bon d'une part am na koo xamante ni ci ay jëfam neex na ma. mooy. muy Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall waaw. parce que man dama nekk bañkat boo xam ne bii dama bañ a bañ a bañ ba dama bañ presque sax sama teranga ci waxee. ndax dama yàqale lu bari bari bari. li ndax ndax damay liggéey ci wàllu bâtiment mhm. Mhm. waroon na dégg nga ma am ay millions. Mhm. te amoo mooy li ma la wax sànq li dañ ma xàmmee ba dañ samay papier appel d'offre dañ koy xotti sànq. du la jox marché du la jox. du ma jox marché. daan na am ay marché yu ndaw au niveau de moom du service de logement de Thiès. ci daal municipalité mais après bon. lu la intéressé ci Thierno ba nga ne. alors fa la jëm si. donc Thierno dafa nekk bañkat ci fànn boobu man nga xam ne dund naa ko. maanaam fab alal bi nga xam ne moom la ñëpp bëgg taf ko seen xol mu bañ ko ngir réew mi. Mhm. gannaaw di gannaaw proposé ñu ko fi salaire bu vingt millions. Mhm. mu ne ma lu ma laal vingt millions xam nga jël ci une petite euh, entité. Mhm. jox nañu ko boo xamante ni bii mucc ay au niveau de seen parti bi seen quartier Kossi Bale. Euh, Almadies il n'est pas logé mu dem wuti bon son appartement. Mm-hmm. donc loolu laa xam ci moom mais lu am solo loo xam ne moo gën a moo ëpp jamono ci valeur. Mm-hmm. kooku bokk na koo xam ne kii maa ngi koy xaw a maa ngi koy xeeñcu. Mm-hmm. yaa ngi koy xeeñ. waaw kay kooku Ousmane Ousmane Sonko xeeñcu bi est-ce que nekkul ni li mu parrainage bi jàllagut maanaam li mu yegseegul. waaw moo tax ngay xeeñcu te demoo. yëguma sax ni. ak chef non waaw fi mu toll nii Thierno moom defe naa bokk wala. non non yëguma ko yëguma ah, ko est-ce que du mu toll nii. tey yow da ngay jéem a xool man góor yi est-ce que. Mhm. xaaroo ba conseil constitutionnel pare ci kii pour nga soog a dem. bon li ngeen ma wax foofu nga soog a dem fi nga war a dem. xam nga bon y' a un peu de mélange dans les questions <laughs> ah. mais li may wax ci seen Alassane Sall. dama ah. ne bokk na ci xam nga dama laaj ci kan nga war a. xaw a nuróol ay gis-gis. non loolu moom kan nga war a supporter à peu près. Hmm. mais wax naa la kenn déjà. waaw bon ma jógee ci kooku. Ah. on a fait sama euh, dëkkandoo bi. Abdourahmane Abdourahmane Diouf. def na benn genre tey de ko. fekk na man à l'époque avant mu koy def def naa fa sama benn. loolu aay la. def naa fa sama benn yoon day sànni mbaal yi. yow da ngay sànni kii yu waaw maanaam pour ëllëg foo jàpp rek. mu baax wala déet. bon euh, yow du ma la fekk si foofu ñëw ñëw nga xam naa yàgg naa la suivre. léegi yow yow euh, stratège nga. Euh, yàgg naa yàgg naa la suivre. léegi yàgg tuuti. waaw yàgg naa la suivre. te stratège nga. te ku amul xam-xam. rek nga di nga ko piégé te di ko dareel. en effet. alors maintenant. waaw Abdourahmane avant muy def son meeting la son te débat. fekk na man ma def fa benn meeting bu daw. def fa benn genre caravane. waaw def fa benn genre caravane. alors bi mu ñëwee wootee son day débat mhm. alors on m'a invité à ce débat waaw ma ci invité ma jël fa parole waaw ma jëlee parole waxtaan moom kontaan na ca lool mhm. waaye waxi dem moom itam mhm. ak moom itam dafa jële ci liggéeyam waaw ndax nekkoon na fi directeur SONES su ma jumbalee mais moom itam yu mel noonu moo ko fa jëlee teraanga bu toll noonu bu ko defoon toog noppi rek jàpp yow léegi Sonko la waaye moom la ndox mi baaxul lan ngay wax ci Sonko ndox mi baaxul dana fa ñëw non non temps bi moo jeex voilà Sonko euh, xale la bu am xam-xam xale boo xam ne bi ci sama yëg sama yëg-yëg mat na njiitum réew ndax Sonko su ma juumalee dama dégg naa sax quelque part que ni am na sax doctorat en en droit public mhm. donc am na xam-xam alors maintenant bu euh, fekkoonte ni bi yàlla def na jàmm mm-hmm. ba nga xamante ne bi ñun ñii tey mm-hmm. di ay candidat kenn ci ñun ci ñi nga xamante ne euh, euh, retenir nañu mm-hmm. fal te ñu ñëpp ñu nangu topp ci gannaaw ba mu doon ba mu doon njiit ñu mën a dégg maam teg un régime parlementaire su boobaa li les prisonniers politiques yëpp dañ leen di bàyyi Sonko y compris intégré nga daal gouvernement mu ànd nag ñu liggéey. yow régime parlementaire nga wax lu àndoo ci régime présidentiel. comme régime absolu c'est un régime dictatorial népotisme moo fa nekk despotisme et tout ce qui kon da nga jàpp ni Macky régime bi muy lii. dañ koy. Macky régime bi fii. waaye dañ ko dégager depuis Senghor parce que loolu moo taxaw moo. boole woon régime pour yow c'est un régime dictatorial. moo boole woon ak Senghor ak Dia. Mhm. ket loolu moo leen te le régime parlementaire ne l'arrange pas moom Senghor il a fallu que dégg nga maam mu créé fomenté dégg nga maam benn benn benn laïs ah, pour dire que ni ki dafa def coup d'état mais ñoom ñoo def coup d'état bi ñoom mhm. ñoo def coup xool ko pendant douze ans kenn réagirul kon doole am yi si suñ président yi yor pour da ko war a wàññi. da koy wàññi systématiquement. Mhm. on a vu l'Italie qui a président on l'entend pas. l'Israël am na président on l'entend pas. Il y a tellement de pays qui ont des présidents pas. En Allemagne, c'est pareil. Il a que des premiers ministres et des chanceliers qu'on entend. Alors c'est le même régime qu'il faut faire au Sénégal avec des membres, alors des hommes du peuple à l'Assemblée nationale, des paysans, des éleveurs, des ouvriers, pour que jàmm mën a am mm-hmm. voilà les candidats yi jëm ci élection yi nii yow ak sa expérience boo leen doon xelal di di leen sas mm-hmm. lan nga leen di xelal ci fi ñu jëm pour Sénégal boo xam ne. pour dire la vérité. Mm-hmm. ànd naa ak yow foofu depuis soixante système bi ñuy dund baaxul. léegi ñu soxla beneen système. Mm-hmm. yow ak sa expérience pour yow lan lan war a changé ak fan lan war a jëm pour am Sénégal bi gën. fi ñu war a jëm. Mm-hmm. moo ñu def un investissement objectif. mooy lan dem dans ñu dem ci secteur primaire. ci mbay ci napp ak ci càmm. gis nga liggéey xale yi di dem ci mbëkk mi. ak chômage bi ñuy wax. ak agression yi ak et c'est la promiscuité moo ko posé au niveau de Dakar parce que dañu étouffer le poumon de l'économie de ce pays maanaam fi ñu noyyee foofu la ñu foofu la ñu fàtt mm-hmm. te mbay moom ak napp googu ak càmm googu moom la européens yi nekk seen sookul ba tey seen sookul de développement moo tax Chine ak si tey ba ñu koy ba ñu koy naataable première puissance mondiale mm-hmm. ci mbay ak napp ak càmm la sukkandiku am naa benn programme mooy su ma jógee fii tey damay dem à Bargny pour def fa beneen tournée un eh bien ci wàllu mbëkk mi pour autoriser yi le par euh, commençant par le gouverneur ak tous les chefs coutumiers ñu waxtaan ak l'État ñu jox leen ay tool ca ca jam ñaajo jam ñaajo ay tool la woon c'était pas fait pour faire des faire une nouvelle ville ay tool la woon waa Bargny bu dafa nangu te neexut a tabax hmm. bâtiment yi am na ay défaillance man je suis un technicien supérieur civil c'est pas bon hmm. ñu jël baykat yooyu xale yooyu yóbbu leen ci napp gi ci ca ah, ca may ma def fa ay orange def fa ay mango def fa ay euh, lujum ah ak yeneen yeneen def élevage en même temps jox ko xale yi ñu ko exploité di jaaye mais duñ dem mbëkk mi jeex. automatiquement loolu mooy coow yi. Mhm. voilà problème. Mhm. waaw. jërëjëf waaw. Ah. Ah, di di gërëm di la gërëm nag. xaw nañ la yëngal bu baax. voilà mais. Hmm. pourquoi émission bi intéressant dama jàng ci sa biir wax ni xam-xam mi ngi fi jaar-jaar mi ngi fi mm-hmm. te stratégie bi nga teg aussi da la koy nangul. Mm-hmm. mooy bëgg ñu dégg la ñu ne parrainage nga ñëw dugg pour que ci débat bi nga mën a apporter sa expérience boo deful woon loolu mun na am tey du la fi woo. voilà te ñi du la xam. et je peux dire que je te tey jii da nga ne. gis nga ay ndaw yu taxaw te am na ñoo ci lim. Mm-hmm. ni mën nañ soppi réew mi tey ku la déglu xam ne mm-hmm. jàng nga eh, génie civil def nga ko am nga jaar-jaar am nga xam-xam. mais da nga nekk victime ci système bu bon bi doon dund léegi nag yow loolu nga bëgg contribution day am solo. di am solo ñu ngi lay jégalu baax di la ñaanal. maa ngi yokk la wér à 74 ans ba tey ji ngay tenir. loolu bëgg sa réew rek. Ah. ancien militaire commando. mais yéen ñi dama leen di gërëm xam nga. vous êtes vous êtes vous êtes rompu à la tâche. vous êtes des très grands alors li ma doon ñaan mooy xëy na beneen yoon ci yeneen émission ngeen mën ma éviter waat ñu waxtaan ci yeneen anam waaw waaw dañ waaw sama dënn am na lu ci rek lu bari waaw soxla nañ la wala danañ danañ lay waaw yenn saa yi damay wax bay mujj gi sax damay aalo ndeysaan jërëjëf waaw jaajëf ah, xale bi dama ko yàgg apprécier dama koy gis xam-xamam doy na ma mm. ah, yow mi sa sa cawate ak fair play <laughs> da ngay da ngay farcé ba dugal li ngay dugal bilaay wala danañ non kontaan naa loolu jërëjëf <laughs> Mamadou Ndiaye ah. candidat indépendant nekkoon candidat déclaré. mais mm-hmm. finalement man bu ma xamoon ni caution bi du mat ñun dinañ ko lijjanti ah. non caution bi am na ko jàppale la ci parrainage bi bi da nga waroon wax ak ñun avant. xoolal wax naa ko eh. waxati ko. Eh. te yoon yemul ci benn. incha allah maire yaa ngi ñëw. député yaa ngi ñëw te ñii sax ku ci falu damay ànd ak yow liggéey. ak foo ma mën a teg nag. ba ma tegoon secrétaire sax day may ma ma nangu waaye teew léeg rek nga ñëw ni ma paa loo xalaat ci nangam rek ma wax man loolu doy na ma dama def subside de classe mm-hmm. bëggatuma alal mm-hmm. bëggatuma pouvoir pour le pouvoir dama bëgg rek pouvoir pour appliquer pour que gars yëpp am pouvoir. Mm-hmm. dëgg la macha allah jërëjëf yal na la suñu borom yàggal te yëpp merci Souka. jërëjëf Omar papa ji di Mamadou Ndiaye alliance Doudou ñu ngi koy sargal. nga nuyu ñu nag waa Rufisque lu bëree bëri. waaw waa Bargny wala. waaw Rufisque. waa Rufisque waaw surtout waa Guy Mouride. waaw nuyu nañ leen lu bare bëri. waa Guy Mouride ñoom itam. dañuy defal nañ man loo xam ni. ba mm. nga leen di delloo njukkal. macha allah te sama yéene ci ñoom rëy na lool. d' am ko jox. nuyu ñu waa Guy Mouride ak ñi nga xam ne rek ñu doon bàyyi xel.